parce que depuis Bo depuis quelque temps nous nga que farak Ngour wala ñu communication yep. population ils ne sont pas responsables la plupart nous ñëpp bu communiquer dañ une population yi une responsabilité mais les population nañ une te ay autorité ñoom ñoo ko ñoom yor bu dé jël mesure population yi nekkuñu à part parlementaire yi nekkuñu fu ñu loi nekkuñu fuñu jëlé décret donc bu fekkente ne fayit am na ce n'est pas du côté des populations bi jëlé mesure couvre-feu bi mais dëkk bu nekk dina am ay récalcitrant dina am ñuy bañ am ñu nangu mais 95 ou 98% de population dañu nangu couvre-feu bi même boo xoolee ba trois jours 5 jours après sax nit ñi tàmmoon nañ tok seen kër ba daawuñ sax génn mbedd mi fluide donc côté couvre-feu bi population bi respecté nañ ko hormis quelques cas te loolu noonu la dëkk di doxee bu dee également ay mesures ay masques au lieu que état bi jël responsabilité daal di subventionner ay masques defu ko au lieu que état bi jël responsabilité am distribuer ay masques population bi defu ko mais daal ne population bi war ngeen a takk ay masques population bi di jéem ñi dem ci tailleur ni dem ci pharmacie yi fa ay masque tak ko nam am na ñoo xamne également c'est vrai duñ tak duñ tak masque mais état bi mo waroon développer une politique bo xam ne kat li nga xam ne moy mooy contagion bi bokku na ci tak takk masque mën na développer une politique pour subventionner maxi masque masque yi la ci état def bu fekkente ne dóore le état yaakaar pour fac mbir mi djumna na dóore fajul li liy faj li moy lan joxe masque ba pare taxone la dee ko tak ko ko takkul nak su boba nga am nga jëflanteeg yoon pas dóor parce que amul fenn loi bu ñu ne boo deful lii da nga war a dóor am na ay ay ay textes yoo xam ne boo deful boo jàddee yoon yoon moo la war a teg yoon mais pas ay dóor bu fekkente ne communication wu ministère de l' intérieur bi ñu am war am ngoon moo di ne ku takkul masque ñu dóor la nar naa juum ndax dëkk bi nekkul dëkk boo xam ne dañuy dóore donc nekk dëkk boo xam ne ku jàdd yoon yoon teg ñu teg la ci yoon mais pas ay dóore teg ñom la jël ci sen responsabilité masque yi nga xamné gis nañ ne moom mooy askan bi ñom ñu ñu ñu jox askan bi ci wal subvention wala également ñu wañ wàññi prix prix masque